jërëjëf bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiili Père Birahim Ndiaye mbokk yi nuyu nañ leen bu baax a baax a baax fépp fu waay nekk ci réew mi ak bitim réew eh, ñu leen di jaajëfal bu baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb waaye wéetuma ci benn yoon ci jàngat làmb ji ndax ku ci ne xam na ne dama ciy ànd ak sama papa sama xarit sama kilifa Père Birahim Ndiaye borom wasaare làmb ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax waaw jërëjëf Jili maa ngi lay delloo nuyu bu baax di kontaan ci yow. Hmm. Eh, ñu des waataan waxtaan ci deuxième euh, deuxième kii bi quoi. Hmm. deuxième thème bi ñu war a waxtaanee waat. muy jëm hmm. ci làmb. maa ngi lay déglu. incha allah. Euh, ñu ñëw ci combat boo xamante ni du ñu bëri ñaari yoon. Mm-hmm. Eh, ñetteel bi euh, mm-hmm. suñu papa Gaston ñu tëgg na ko mm-hmm. yal nañ ci yàlla may fekkee ak tal bañ yegg ci ak jàmm ak salaam mu dox ci diggante Lac de ak Eumeu Sène dañoo bëri combat bu njëkk bi stade euh, Demba Diop ñoom ñaar ñu nuy ñu bëri waat deuxième fois Eumeu Sène daan ko troisième fois bi combat bi taxaw na tey dañu bëgg indi combat deuxième combat bi père nga décortiquer ko xool combat bi ban gis-gis nga ci am euh, ak ban taxawaay nga ci am ak ñoom ñaari mbër yi ku ci nekk nu mu mel ci làmb Eumeu Sène moom xam nga ko champion la yàgg na ci mm-hmm. làmb mm-hmm. la dëggee de kenn du la ko présenté mm-hmm. loolu ñooñu loo ma mën a wax ci ñoom ñaar waa ñoom ñaar de seen combat fa yi ñu dajee dafa war a neex buñ doon bëri dix fois sax dafa war a neex dix fois laax buñ ko bëree ci seen carré war nañoo bëri sax lu ëpp ñetti yoon ñoom parce que dañoo maase jamono tolloo bokk jamono bokk temps lépp laaw te kenn ku ne sa naata nga morom ko kenn ku ne sa nawle morom la la de guerre Ama euh, Sène nawleem la moom it naaw Ama Sène nawle kii nawleem la. Ama hmm. Sène Lac de Guiers nawleem la. Hmm. kon su leen làmb boolee war nañu mën a bëri bu neex. Hmm. waaye bëri bi nag man li ma ci gis warul am bëri lutis boo xam ne bii comme bu njëkk ba. boobu combat amul daal luñ ci wax. xeex nañu xeex bu metti bëri bëri bu metti boo xam ne keroog ku ne jox na ko àqam ba ñu marché nii. kooku moom keroog dañ ko jox àqam mais deuxième combat bi nag mais combat bi ñu bëri nag te jox kii victoire. contre ma Ama Sène. Hmm. su ma ko contrer yàlla bu ma gisee ak yonent bi. dëgg la père Birame man aw ma ku may contre aw ma may bay waaye bu fekkoon maa yor bi. Hmm. dama leen di woo ñu bëriwaat. Hmm. parce que ñaari match yoo xam ne ñooy champion lamb ji. kenn mënut a tudd lamb ba génn ci lamb ji tuddoo Ama Sène tuddoo Lac de champion yi mën ci lamb ji fi ne nii. jamono yi amul kenn ku mën a génn génn ci Ama Sène wala nga génn ci Lac de yàlla rek gestu yu bëri pare maanaam jiitu ku daan nga ne kii teg na fële kële jëkk nañ dem seen télévision mm. kan moo jëkk teg fase kan moo jëkk ak déedéet ci am mm. xam nga lu ci war am wóol mm. bit gaa bu seelee bëri bi bu kii tëkkee kii teg ñaari moom euh, nañu lu mu ci mën a dem arbitre dafa war atte mu leer nañ kuy jóge ci làmb ji di génn nga xam ne jël bu leer nañ nga yóbbaale sa kër loolu moo doon yoon te loolu moo doon defar làmb hmm. te loolu dafa bari ci làmb ji te combat bi am na ci seen deuxième combat. ayca ñu ñëw ci combat bi kon Pierre wan ñu lan moo tax combat bi loolu am ci ah. euh, Pierre ayca ñu dem ci écran bi ayca ayca Adama le grand cadreur Pierre ana Eumeu Sène ak Eumeu Sène a ngi nii euh, moo ñu wan ginnaaw moo teg pied droit bi uh-huh. jiital Lac de Guiers moo teg gauche bi uh-huh. ñu jàkkaarloo xam nga foofu moom du ma ci delluwaat waxoon naa ko dëgg la pied gauche ak pied droit hmm. toujours rek am na day am benn secret buy nekk ci biir bëri boobu. Mhm. kooku wax naa la ko xam nga rek répétition lay doon rek. Mhm. per ñëwal ne tuuti euh, côté bale na le. ci ginnaaw waaw. waaw tournel bu baax jàq. kay yaa ngi noonu baax na waaw. am ba ngi nii. Mhm. teg pied droit pare tàllal main droit. kii itam teg pied gauche ba pare jiital yëkkati main gauche bi ñu ngi ci lewtoo bi. ñu dem. ay ca ñu dem sëñ Basirou. waaw léewtoo ñu ngay léewaatoo ñoom ñaar di xoolante. ci bët xam nga lii li ma la waxoon naa la fii. waaw lii mooy dagg léewtoo. gis nga koo gis mu léewtoo tàllal loxo yi ba mu jeex ah. mu ngi bëgg waa ji jige si ko ah. pour mën koo song wala mën koo dóor mu dal waaw moo tax mu léewtoo au lieu nga tàllal sa loxo ah. boo tàllal loxo ba mu jeex waa ji day xam fi nga yem hmm. day xam fi loxo bi yem hmm. mais soo daggee sa loxo dagg sa loxo dagg sa loxo hmm. day gën di la jige te du ko yëg dëgg la maanaam dina ñëw ba jige la mais du ko yëg parce que loxo yi fi mu yem day defee ne fa nga dem fekk ne boo tàllalee romb nga ko est-ce que dégg naa ko baax waaw très voilà léegi nag moo tax gis nga li danga boobu moom la kii def mhm. ah, moom la ladd guerre bi def mhm. ñu dem ay ca ñu dem waaw gis nga ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar waaw kii te ama seen gis nga taxawaay bu baax la taxawaay bi mhm. taxawaay bu baax la laaj de guerre tamit aussi guerre waaw waaw laaj de guerre taxawaay baax la mais xam nga te tax kii gën ko taxawaay xoola ci bii dafa ëpp bu laaj de guerre waaw xool tànk ci njool ci njool waaw ci njool maanaam tànk yi dafa écartement bi dafa ëpp écartement bi fii kii bu fekkoon dajekat songkat bu gaaw la bu ne coppe tànk génn day ko waaw bu fekkoon ne songkat bu gaaw la mën naa jëm droit bi laaw buy sigiré mu coppe tànk bi moo tax écartement bi ko taxawaay dañ koy jàng taxawaay nee naa la nit mu du am doole mu ko ci xamul na muy taxawee oh. taxawaay mooy nit parce que hmm. doomu aadama bu taxawee benn tànk amul doole am na noo xam ne tànk yi bu ñu ko làngee amul doole am na xam ne tànk yi bu ñu croisé ne amoo ko doole foog nga am équilibre boo xam ne bii su hmm. su la fukki baaraam ba ma ko doo daanu hmm. mais am na noo xam ne boo taxawee benn baaraam mën na la daane moo tax fii taxawaay bi wala dafa la akar ba pare siggi xool ni mu siggee taxaw hmm. wala kii euh, la de guerre xoolal ah. gis nga piste bi ni mu siggee bis bi dafa war a sëgg tànk bi ñëw tuuti mu toog sëgg dagg maanaam nii maanaam daal su ma déggee wax mooy Eumeu Sène warul seen jumbaxu Lac de Guiers 2 très bien ça waaw yow yow yow léegi yow te ma laa nga ñëw taxaw fi déedéet <laughs> ëpp war a ñëw bàyyi a ñëw <laughs> waaw waru seen jumbaxam loolu mooy yoon dëgg la waaw loolu ci te loolu loolu loolu la du lu ñuy wax rek lu ñuy jàng la mm-hmm. ci entraînement ba ñu ñu dem ay ca ñu dem waaw ñu ngay lewaatoo waaw parce que Eumeu Sène fi mu toll nii dafa mel ni da ko bëgg a woo ci xeex waaye da koy nax ci tànk. waaw Eumeu Sène moom hmm. li ko ci arrangé mooy jë ñëw rek. Hmm. waaw mais ñëw dafa am lu ñuy ñëwee. Hmm. ñëw foog nga déplacer de gauche à droite dem droite dem dellu si waat dem gauche dem droite mépp dem dem déplacer mu defee nga dellu si waat. waaw tànk ba buy dem rek dajale ngay ñëw. Uh-huh. parce que boo ma nee nii sa tànk foog mu dem topp ma. Uh-huh. su ma dellu si nii foog tànk bi toll ma. mais su ma nee nii bu tànk bi dem ak moo lay jël benn lay doon. loolu appel song la. maanaam loolu dañ koy jàng ci song. Mm-hmm. ñu dem. ayca ñu dem ñuy leewaatoo ba tey. waaw waaye keroog ku kuy seetaan làmb ji xam ne Eumeu seen daa bëgg a dem te per ci tànk yi rek la mën a jaar. ah loolu la mais loolu moom seen euh, yow tam fii da ngay mm-hmm. xool xam ne looy tomb bu bar bi yëpp. Mm-hmm. mooy bëgg naa jëli kii. fii tamit danaa la wax leen la de guerre dafa am direct gauche bu baax boo xam daf ko am. mais di ko li mu koy téye dafa bari. moom goos bi waaw. Mm-hmm. mooy jumbux bi ma ko wax noonu. Mm-hmm. ferme ferme wàcc nii wàcc sigi bi dafa ëpp bu sëggoon tuuti. rajo mm-hmm. tànk bi xaw a ji gis nga sëgg comme nii. Ah. nga xam ne bu léewtoo loxo bi day neex. maanaam góos bi dafa gaucheam bi. waru koy téye lu bari. même bu dal war na war nay lancer ci bari. waaw ah, war na ko bàyyi muy dem. muy dem. xam nga loolu lu muy jëriñ ma wax la ko ci bëre. waaw xam nga weñ weñ yi naaw. waaw est-ce que weñ du gaañee. déedéet weñ xam nga fu mu ne la la ngay dàq rek waaw du la futt du la gaañ dara waaye bu baree sa kanam foog nga fàq ko yoo hmm. bu neexee sa nopp wala doo ko faxas waaw loolu moo tax bu baree sa fii ne bi bu baree rek hmm. day perturber kii waaw maanaam nga léewtoo léew foo léewtoo rek jamal sa gauche gauche bi nay dem rek goos bi dafa war a dem comme lastique hmm. pang mu dem nga léew léew pang gauche bi dafa war a dem fekk gauche bi dem rek day perturber waa ji buy ñëw du ko tey maanaam mu ngi comme li ma la ko expliqué léegi muy weñ wu naaw foog nga dax ko wala yow bu ne ci sa nopp foog nga dax ko hmm. mooy goos bu bari ci kanam wala droite bu bari ci kanam hmm. waaw ñu dem comprendre nga comprendre nga comprendre naa bu baax gis nga voilà ñëw na voilà mais gis nga nag très bien ça gis nga gis nga nag xool xam nga mu ak kii ama euh, seen daa daw rek indi ñaari ba pare père ah. surtout li nga doon wax mbër boo koy jëli da nga yokk sa tànk waaye booy te ma laa bàyyi nga ñëw taxaw père père li yaa ngi may non dama danaa danaa ko bële danaa waxtaan ak Bas. Ah. léegi yow fii yaa taxaw ne man ma toog di la. superviser rek ëpp naa def. xool xool ama seet. gis nga ah. kii bu doon tërukat. kii bu doon tërukat. Mm. day day moom na coppe tànk bi dëj ko. perdre na équilibre complètement mm-hmm. xoolal lii écartement bi. waaw kii kenn mënu ko def di am équilibre. waaw daan woon na complètement kii xool bi lay ah. fel lay fel lay fel euh, kii. loxo maanaam gauche bi lay fel loxo bi rek na ko. ndax kii song dafa yóotu. song ak yóotu du benn de. waaw dafa yootu waaw ah, dafa yóotu mais song. waaw ma seet moo tax dafa yootu parce que déggoo li ma de songul dafa yóotu. Hmm. maanaam lii mën nañ yooru. Hmm. fii li li xale yi naan am rek mbaa dee. kon kon mais dafa yooru dafa yooru def am rek mbaa ñàkk. Ah, dafa yooru dafa yooru. Hmm. maanaam dafa si yooru. ama seet fii dafa yooru. song bi waroon naa ñaari tànk yi pour déplacer ñëwandoo nga xam ne tànk bi loxo bi fii la war a ñëw ci pooju kii. dégg bii. bu jàppee wala loxo mbéy loxo wala góosam bëri mhm. jàppi tànk bëri ci ginnaaw mhm. ñoo xam ne ci boppam bi fii tegu ci naq bi fii rek mëkk ñaar tànk yi dem loolu mooy song mu baax bi mhm. mais fii ne dafa taxaw waa ji daan ko mu yóotu ko nga ni mu ko yóotoo écartement bi baaxul écartement bi taxawaay bon la te moom mi may am a seen bi su ma dégloo eh, man maa ngi lay nuyu ah. waaye xool boo demee di nga ne père bi daal li mu wax téere téere dara du ci dem kii tamit fi mu ko fi mu dugal loxoom nii ah. baax na waaye dafa warul fël loxo bi remplacé ko moom la dëgg waaw da war a firlaanga leen cop da ko war a tëru su doon bëri tërukat da koy tëru mm-hmm. xam nga luy tëru ci bëri tëru mm. xaw ma ñuy seetaan tëru mooy waaj di la song nga mm-hmm. mu ne yëmet nga féete ko suuf mm-hmm. boobu nag day ànd ak déplacé rek dëj mu jeex tàkk loolu mooy tëru fii rek tëru moo fi amoon ay ca ñu dem ñu dem mu jël tànk ba voilà rek yëkkatee très bien ça gis nga mu ne jël tànk bi téye de mm. gis nga fi mu ne nii léegi Lac de Guiers gis nga loxom bii mu génn ci biti nii. Hmm. danger la ci moom. moom Lac de Guiers. waaw bi ci kaw Eumeu Sène. bi ne ci kaw nii. du hmm. woon yoon fii ci biir la ko war dugal. daal di daal di loxo ba bële maanaam gauche bële éliminer. Hmm. kër de tànk bi mu wàcc. parce que tànk bi nii mu jógee di war fa def ay seconde. tànk seconde war ko fa def. parce que léegi xool Eumeu Sène ñaar tànk la tegee ñaar tànk la taxawee. kon moo gën baax taxawaay. ki taxawee ñaar tànk moo gën a baax taxawaay dëgg la loolu fer la léegi nag kii benn tànk la taxaw benn baa ngi ci kaw léegi taxawaayam taxawatul assurétul léegi Eumeu Sène bu xamee ni muy jàppe tànk pour mu rëcc day jafe léegi fi ne nii boo naan coppet da ngay éliminer benn loxo bi rek këdd tànk bi mu wàcc loolu mooy yoon loolu moo la ma def waaye fi mu ne nii wala boog mu dugal loxoom ci biir moom la de guerre mais defu ko léegi Eumeu Sène fi am na fi avantage comme loxo bi kii na day wañ su mënta wañ mun a yarax tànk bi takk ndigg li parce que loxo ba ngi ci biir. Uh-huh. loxo ba léegi nag takk ndig rek séntu ko. Uh-huh. am na caxabalam bu muy faral di bëree moom mooy ko si gërëm boobu. waaw cax mu daanoon Balla Gaye. waaw waaw yooyu am na fi. Hmm. bu tegee tànk ba bu takkee ndig day ko mi mi caxabal bi yéeru ko. Hmm. amoon na fi jël. ay ca ñu dem xool fu muy mujj. ñu dem jël tànk bi. voilà gis nga. Ah. voilà ah. très bien ça. Ah. gis nga gis nga bi gis nga dëj bi xool. xam nga dafa réer di ko dëj léegi la ma la wax ne gis nga xoole ngemb li mu téye nii xam nga la dëggee dafa téye doon téye fii ngemb li da doon yóotu fii pour téye ko ci la ko dëj ci la koy dëj mais loolu ba nga koy def action boobu hmm. ba nga koy def da ngay rëcc ba pare la dëggee balaa mu koy def. waaw bala ngeen action boobu. Hmm. parce que loolu lépp pour nga def ko du taxaw xamal tax. Hmm. benn tànk mënoo ko taxaw def action. yooyu déedéet mënut a nekk. xanaa jiir kay itam da nga ko dégg li ma la. waaw waaw leer na naa ñu père. ak yéen ñiy seetaan dama ne. Hmm. jiir ma ne mënoon na coppite benn tànk taxaw di moom mu taxawee ñaari tànk def action yow nga taxaw benn tànk di def action. mënut a nekk. moo tax gis nga bi mu ne coppite yooyu gis nga léegi nag lenn la dënnam bii da ko waroon teg fii ci ginnaaw ko téye ngembul waa ji ci ginnaaw waaye lépp loolu la ko ci gënoon am solo mooy fexe ba dindi xam nga loxo tànk bi ñaar loxo la ko jàppee. Hmm. ne dindi benn loxo bi këdd tànk bi mu wàcc. kon la dëgër fii warul def dara lu dul génn. rëcc rek rëcc rek mooy yoon. rëcc rek mooy mooy mooy. xam nga dañ naan la. waaw lii fii rek fii la rasu amee njëriñ. fii la la waroon wane. boo déggee ñëwee diw a rasu xam nga mooy lan. Hmm. Hmm. ñu jekku la ba nga war a a jafe ci bëri. gis nga bëri. soo déggee ñu naan diw dàngam li gën a jafe ci bëri. laa lay wax de jëli. mooy nga rëcc mooy rasu ak riñaan. dëgg la riyaan mooy nga song paquet ñaar tànk rasu mooy ñu jekku la ba comme nii comme nii ñu ko jekkoo ni mu fexe ba rëcc waaw parce que ama kii tam bi muy wàññi euh, ama seen mi bi muy wañ gis nga ñaar tànk yi ni mu def amul équilibre dégg nga li bu fekkoon tànk gauche ba dafa dem wala tànk droite bi ñëw ci kanam ba mu am appui mu koy wañ du ñu ànd dëgg la fii de moom mënoon naa wañ la dëggeer la dëggeer toog moom du ñu ànd sax hmm. du ñu ànd mais nag daf daf ko ne coppe taxawul. Uh-huh. gis nga ni mu daara ji taxawul dafa waroon taw tànk bi ci kanam teg maanaam sans sans tegal seize. tegal seize yooyu booy wax tegal ah, seize yooyu. tegal seize la doon demee. ayca ñu dem sëñ ñu dem. rek gis nga voilà fii gis nga ko. parce eh, man bàyyi naa Père Birahim. ah xoolal xoolal xoolal ma lii ànd nañ ci suuf de. ah waaye itam li ma la wax dama ne la. xiyata man du ma ma waxantu parce que xamal naa samay wax hmm. giñ naa ci borom Tuubaa laa dama ngi jël ci yàlla tubi saa sa di bañ kenn yàlla mayuma pour may bañ nit wala may wax ci nit bon waaye teewul bu ñu ma àttale naa wax ni ma gisee gis-gis bi nag yow mën nañ ci dëppoo mën nañ ci bañ a dëppoo hmm. yow mën naa wax ba pare nga ne ma li père bi laay wax man gisee ma noonu. dëgg la waaye man man ma jiile li ma wax man gisee ma noonu. dëgg la dëgg la dëgg kenn ku ne da wax da nga gisee. mais man ci bëre yoon gis nga ñu dem ñu ànd nga xool ah xool ah, ah la dëgër nga noonu xam nga da ko tur face face ba tegu na. waaw parce que gis nga ba kii dem na. waaw bopp ba jiitu na bopp ba dem na. waaw mhm. ah, lii lu ma def lu ma oo ñu bëri waat. ayca ñu dem ñu dem ñu dem sëñ Bas ba mu. ñu dem mu jëm gis nga. yéen mu dem. waaye mu dem gis nga jóg nañ. voilà mu dem. Ah, action côté gis nga. gis nga gis nga gis bopp bi. gis nga li ma la. kéance bi gis nga. waaw ah, gis nga kéance bi waaw kii tey sa bopp ak ni mu def action bi. waaye yéen ñiy seetaan nag wax leen te yàlla taxawaay. Ah. Lac de Guiers moo oyofal ko mbir bi hmm. moo ñu ko laajee moo ne bon bàyyi de xam naa ne doyal na ci combat bi. bàyyi mu dem rek mais kii jël amu fi. lii yéen ñiy seetaan yëpp ku ci xool xam ne da nga boole ñu bëriwaat arbitre dafa war a ñëw ne kii def yow taxaw mu ñëw si la xoolal bopp bi xool tànn yi fii lu contesté la. waaw yow père fii li nga bëggoon mooy ñoom ñaar. waaw dayo yi ñu am ci làmb. ak fi ñu toll. waaw waruñoo bëree ñu naan est-ce que daan na ko wala daanu ko. ak waaw loolu ba tey muy ci benn benn yooyu benn la ci. Hmm. mais ñaar nga xam nga mooy lan. action bi ni mu demee yéen ñoom ngeen teg seen bët kii samp boppam ba jaaxal ba nga ñu kër ñëw teg feesam jàll. ah te action yi dafa ànd. bu fekkoon ne kii wala dafa toog ba par toog ba ne fekk toog ba ne dett la dool koo xalam sax ko mais fee sama teg kii bi muy dem kii sëpp na bi uh-huh. benn oom bi dem na uh-huh. dégg nga mu xalam mu doon ko xalam mu hmm. kon kay dëgg-dëgg woo bëri waat rek hmm. kon deuxième combat bi noo ko gisee neex ba bëgg a dee li li am ci bi bañ ci boobu hmm. lii am ci bii bañ a ci boobu combat bi ñaar bu ñu bëree combat bu neex la parce que ñoom ñëpp ñoo booy jom ñoom ñëpp ay ndaaraan lañu ñoom ñëpp làmb ji dañ ci am cër. Mhm. te kenn ku ne def nga fi jàllale joo xam ne ji wax dëgg la. Mhm. mais lu ma lu ma la wax mooy. Mhm. fii ne combat bi li ba tey joxuma la dëgër dafa defet kon bëgg nga combat bi mu gën a leer. mu gën a leer boo xamante ni dinañ. mais Gaston maa ngi koy félicité te gàtt na combat revanche mu neex. yi mu tëgg yi benn dàqu ci bii. kon di nga gisaat bëre la. waaw bëre bu rëy gis bëre Eumeu Sène waaw Euh, mu doon loo xamante ni euh, yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam bu baax xam-xam bi euh, baax a baax di kontaan yow rek yow hmm. moom xam nga waxtaan ak yow neex na hmm. parce loo xamul di laaj hmm. te loo d'accord di ne d'accord ba ci nangam parce loolu mooy waxtaan wi dëgg la père suñu waxee loo d'accord déet ne man gisee wu ma nii nii laa gisee may la man nii laa gisee ah. ñu discuter ba mu féete ba ah. waaye boo waaye nag des na tuuti nag ah. jéeri bas xam naa ne taxaw fii. déedéet père. waaw damaa bëgg nga jàngal ma parce que damay jël ay leçons. mais leçons yi ñooy ñëw parce que léeg-léeg moo lay sabab la ci bala baax nga yàq xam sax xame ko. keroog eh. keroog yaa ngi may jàngal téq. waaw ah. ma naan euh, téq na ko. Ah. ndeket téq. téq loxoo koy def loxoo koy def. waaw euh, ma def téq mooy maanaam ngay def sa loxo def nii. kii mm. téq la. Mm. dégg nga kors loo li wax nii téq la kooku mm. loxoo koy def. Ah. kii nag bu dee fossage dóor tànk nag hmm. kooku fossage la kooku fossage mën a tubaab ne fossage hmm. waaye kooku padd la tudd ci wolof wolof hmm. ay wax padd na ko padd moom tànk koy def tànk mooy padd mooy dóor tànk bi waaye téq moom loxo moo koy def mooy nga téye Papa Sow daa padd daa padd tonnerre man ni loolu padd loolu mooy paddum jàllale ku jëlee mu doon fànn ko fànnum jàll. kilifa gi bi Pierre jàngal la téq loxo koy def waaye daal. non am na yeneen sax am na yeneen ah. yoo xam ne ci biir bëri dinaa la ci wax ni mu tudd ci wolof. yu ci bari boo boo yaa ngi koy wax di ko seet. mais hmm. xamuñu ni mu tudd ci wolof. dëgg la Pierre wicc xamuñu ko. Hmm. xamuñu gulër bi. Hmm. xamuñu penk. ak fenku fenku ak penku. dafa am fenku am penk. Uh-huh. yooyu ay façon bëri la. yoo xam ne boo yàggee ba te xamuñu mu tudd. dinañ ci ñëw père dinañ ci ñëw ah jotam lay lay la laa. waaw rek kon waaw di tàggoo di kontaan di gërëm ñëpp nag di gërëm. Uh-huh. Euh, comme sama gaa yi ni mu ko daan defee rek. ndaw ndaw kooku moom léegi xam nga ko ah. jabar ji Seydou bu Ndoye mu ngi ah. di Thiès maa ngi koy nuyu ah. ak collègue am yooyu mu nekkal dafa am booyam yu ko yu muy toogal nag booy yi dañoo bëgg wasaare lu ñu seetaan dañuy ñëw ma ne ko nag bëggoon naa xam seen tur leen jàllale max jili ñu leen jàll di moom faw ñu am seen tur waaw maa ngi moom am yu ma jox sama portable dinaa leen ko jox waaw di nuyu Issa Diène États-Unis moom it moom bii samay jabar lañu ñu nekk États-Unis nekk baax ba bëgg a dee waaye nag fi ma tegee moom Euh, du ma fàtte Mbodj Mbodj ni ko tudd. Mbodj Sonatel Mbodj Mbodj Sonatel Fallou Diop. waaw Fallou Diop ah, Fallou waaw la war jabar ji ku mën ceeb la. faaw ñu dem fa yéen Diop yi bu leen ma summi nag. awa Diop awa. Ah. awa Gueye jabar fa jabar jëkkër yi bëgg ceeb nag. dëgg la léeg-léeg mu bu di ji bi la togg tey la. Ah, loo ko yow yaa ko a bëgg. di ko sant bu baax a baax a baax. di ko ñaanal lu mu mën yàlla na ko yàlla mën a ëpp loolu. baax na jël na fonk na ma di ma defal ay teranga ah, ah, dañ ko xam nag ah. nit ku baax yokku nga ah fer kon feral dama ne nit a tax ñuy wax nit dañ nekkul sax ci alal ju mu lay may njëriñ la baax rek alal yàlla xarit la koy jox ki lay xalaatal lu baax di la hmm. teral lu bon di la digal lu baax di la ci yoon hmm. di jubbanti kooku nit ku baax la. dëgg la père bi baax nekkul ci alal ju lay may rek. dëgg la dëgg la alal ji la fi lañ koy bàyyi waaye ki lay digal jaamul yàlla. maanul nekk nit ku baax. toppal sa islam dafa lii mm. kooku kenn gënu ko. jërëjëf père Birahim. waaw kon yàlla yàlla si biir. amiin yàlla fi yàlla def jàmm ak xéwal. amiin wasaare moom. Ah. ca kanam rek maa ngi ñaan yàlla ca kanam ca kanam. amiin yàlla baax mi jërëjëf mbokk yi kon noonu laa leen di jaajëfalee bu baax a baax a baax eh, di siyaar sama cadreur le cadreur des su ma ko waxee xel mi day dem ci Adama. Ah. borom ñaari soxna yi ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax. Adama ñaari soxna la waaw Adama ñaar. xam na ko def naa erreur de parce que <laughs> Adama sama doom ji moom saa yi ma ñëw teeru ma kaasu ndox bu sedd guy waaw sëñ Basir ah, moom it Bas tamit moom kilifa gi moom it moom it sama doom la ñaari soxna la yor ah. benn Jurbel benn parcelle déet euh, waay di leen jaajëfal bu baax a baax waaw Ousseyn rek lu mu yor moom Ousseyn moom yorul dara maa ngi moom a yem ah déet waay <laughs> <laughs> waaw gone yi jigéen yi rek nañ fexe ñoom it ñoom borom kër ah waaw waaw ku ci mel ni Marème Sène ak ah. benn war nañoo am euh, soxna bu baax a baax war nañoo am borom kër nga naan soxna war nañoo am borom kër jigéen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 tuuna rëy ma juut waa na roy ma saay maa ko baaxi jéeg ñii ma yor si jéeg